asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi si bur seen site internet bi di 24 actu comme niñ ko baaxoo di ànd ak saa su nekk ci naafilay weeru koor wi tey nag ñu dikkal leen ci guddik ñaar fukkeel gi ak ñeent juróom-benn rakaa lay nekk rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon lixlaas di xul huwallaahu ahad ñetti yoon ñu baamtuwaat ko juróom-benn rakaa lay nekk rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon lixlaas di xul huwallaahu ahad ñetti yoon juróom-benn rakaa nag ñetti sëlmal lay nekk ñaari rakaa yoo julli daal di sëlmal ñu dikkal leen ci waxtu nga xam ne ci la jàpp koor gi di 5 heures 17 maanaam juróomi waxtu ci fajar bu toftalee fukki simili ak juróom-ñaar bu dee waxtu dog yi 19 heures 28 maanaam juróom-ñaari waxtu si ngoon bu toftalee ñaar fukki simili ak juróom-ñett ñi ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila